le président de la République a voulu marquer durant cette, euh, ce quinquennat 2019-2024 euh, un nouveau cap dans ses politiques publiques. Comme vous le savez, entre 2012 et 2019, il s'est agi peut-être d'abord de travailler sur des résorptions, sur des retards, des retards infrastructurels, des retards socio-économiques. Vous l'avez vu euh, sur les questions budgétaires, sur les questions économiques. Le Sénégal a beaucoup évolué du point de vue du PIB par habitant, on a eu beaucoup plus d'autoroutes, des moyens de mobilité et autres. Mais sur le quinquennat 2019-2024, il est question d'amélioration qualitative. D'amélioration qualitative. Et je vais m'expliquer. Euh, vous le savez, euh, nous avons une bonne partie de nos populations qui vivent en ville. Peut-être 60 ou 40% des populations qui vivent en ville, en milieu urbain. Mais la particularité, c'est que nous avons aussi beaucoup de personnes en milieu urbain qui, sont qui vivent dans des conditions difficiles. Et ces conditions, on peut les résumer en trois types euh, de problèmes. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce qu'on habite peut-être euh, à Gedewaï dans une banlieue, qu'on n'a pas droit peut-être à une planification urbaine, à, des ouvertures de routes, qu'on a droit peut-être à des services sociaux de base. Ce n'est pas parce qu'on gagne 200 000 francs mensuellement qu'on n'a pas droit à un logement financé sur des périodes très longues. Ce n'est pas parce que nous habitons peut-être Ndindi, pour ne pas dire cette fois-ci Ndangalma, puisque M. Chersek m'a peut-être reproché un euh, conflit d'intérêts sur peut-être euh, mon ami Morgom euh, à Ndangalma, mais je signale que les programmes des paysages urbains ou de l'aménagement urbain a été décidé à un moment où je n'étais pas ministre de l'urbanisme. Donc ce n'est pas parce qu'on habite Ndangalma qu'on n'a pas droit à un cadre de vie ou Donc ce sont ces questions qualitatives que le président de la République a voulu régler en mettant ensemble l'urbanisme, le logement et l'hygiène publique. Il faut d'abord euh, savoir que la question du cadre de vie, la question du mieux vivre, Madame ça ne doit pas être une question de privilège. On peut être différent de par nos patrimoines, de par notre compte bancaire, mais le service public, l'État nous doit le même niveau de qualité de vie, le même niveau de service public à l'extérieur de nos maisons. Et c'est la raison pour laquelle le cadre de vie, l'hygiène publique, les questions de gestion de déchets, les questions de planification urbaine, les questions d'accès au logement sont devenues une priorité durant ce quinquennat. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a les questions de planification urbaine, maanaam natt yi ñuy natt dëkk yi dafa doon lu am solo ndaxte boo demee bëri na dëkk yoo xam ne li leen utaleeg yeneen dëkk yi mooy maanaam waajaluñu euh, espace bi naka lañ koy dëkkee ana fan la jàkk war a nekk ana fan la espace public war nekk ana fan la gone yi war a footballer ana fan la ñu war a def école wax ngeen ko léegi ay zone yoo xam ne sax mën naa am fi ñu war a def espace public wala fi ñu war a def école dëkkee nañ ko loolu nag ma taxaw ci tuuti suñu mbokk maire yi maa ngi gis sama xarit Malick Fall dëgg la Euh, bëri na ci ñu baax bëri na ci ñu jub bëri na ci ñu liggéey liggéey bu am solo waaye war nañ bàyyi xel euh, espace public yi ni leen di affecté ndaxte ñu ngi ciy góorgóorlu lotissement baax na lool wax naa ko keroog conseil économique et social waaye dafa am lu am solo mooy équipement public yi nga xam ne ñëpp a ko bokk mooy voirie yi nga xam ne ñëpp a ko bokk man jox naa instruction waa ministère de l'urbanisme ñëpp ne leen bu ñu autoriser ci benn lotissement boo xam ne mbedd mi dafa yées 10 mètres ndaxte tey boo demee fu mel ni Nord Foire wala West Foire da ngay gis kër guy jar cent wala deux cent millions waaye mbedd mi bu kenn gaaree keneen du mën gaare te loolu nag am ay parcelles yu gën a bëri rek jaru ko waa domaine yenn saa ñu soññante ci waxtaan ci ne lii waratul am donc loolu dañ ci war a taxaw ba nga xamante ne question de qualité de vie boobu planification urbaine mais li koy saafara du taxaw rek ne dañu naan na am rek mu am déedéet ñun yoruñu baatin boobu comme sëñ Cheikh Mbacke déedéet ñun li ñu am mooy organiser wu état bi defal nañu ministre des finances ñu ko ci sante fonds bo xamante pour planification urbaine la mais dañu dem ba nga xamante wax nañ sax ne bëgguñu ko utiliser diko def lépp ay marché parce que peut-être entreprise yi wala cabinet yi koy defar day cher nañu fexé ba genn wàll bi ñu def ko ay marché mais genn wàll bi tamit ñu jël étudiants yi fi ne di jàng urbanisme ñu génnee ENEA dajale leen def ay atelier d'urbanisme bu ko defee rythme bi gën a gaaw ndaxte dëgg-dëgg Sénégal 557 communes 7 des communes ñoo am document d'urbanisme loolu du yoon loolu nag dinañ ci taxaw ba président jox nañu ci ndigal ba loolu mooy liggéey planification urbaine euh, tudd ngeen ko tamit réserve foncière yi naka lañ a respecté urbanisme euh, honorable député Santi Agne yenn saay mu am li nga am SICAP HLM ak ay communes mais c'est parce que comme SICAP moo tabax commune. yi ko boo liberté 1 ba liberté 6 lépp SICAP ko ba mel ni mais si nous leeree ne communes leen réserve foncière yi nga dem public Nous ñoo des décharges, dem ci décharge ñoom ñoo avons ko nous ñun duñ problème donc nous avons na am nous avons bu wara Nous avons def rek ba xam bu ko nous avons SICAP mën leen avons public yi de ko fi mu ko contrôler avons tamit sama responsabilité avons jël bañ ko avons li le logement leen les politiques du mieux vivre dafa laaj ñu planifier ñu natt bu ko defee espace bu n'êtes ñu réserver ko fa mu war a dem tamit mooy logement logement tamit warul doon privilège rek ki nga xam ne salaire du député wala entrepreneur la wala am salaire u ministre rek moom moo mën a fay loo dina tax mu am logement looloo tax président de la république n'a bi ñu tàmbalee mu ne dafa bëgg bi yoon ni mu ko daan defee le marqueur social de ces politiques publiques moi réfléchir pour le grand pour le plus grand nombre fexe ba sénégalais yi ñuy y loo xam ne njëriñu ñi ci ëpp la mu baña rek Dakar. parce que dégg que sank honorable député Mamadou Diop de wax ko euh xalaat bi jam ñaajo benn rek dañ ko wara wax chaque fois damay wax né dañuy on a la critique facile tambalé jam ñaajo rek na jambar la la fi ak ñaari at fukki ministre fukki ministère danañ nekk jam ñaajo difa duñ ko gëm té lu la à 30 km de Dakar ñun bu on prend le sens contraire té day ki dëkk BDN, buy dem Dakar Plateau di dem ministère am di nous ñun ñi Point E dem di liggéey Diamniadio ñoo leen di gëna a gaaw egg bu défé 30 minutes que le dina def une heure de temps donc lolu déjà ben aspect la donc logement bobu nonu buñu ñu ko Dakar ñu né lepp Dakar yëm waxu ñu né dañuy ghettoiser nit ñi parce que ñun xam nañ lan euh ghettoisation baaxul dañu né dañuy créer ay logement hors de Dakar principe bi nak moy lan état fu mu ay nit rek bu ko organiser du jël rek def ay 200 mètres carrés wala def ay logements sociaux dafa am loo mixité sociale am mixité fonctionnelle lotissement différencier standing def standing te war nañ dem sax fu weesu loolu maanaam bu lotisser ñu créer zone d' activité ndaxte am na dëkk yoo xam am potentiel fi nga xam am nañ fa potentiel dañ leen a ba ñi doon cordonnier wala doon artisan ñu am sen wal waaye ñu doon industriel wala bëgg def logistique tamit ñu am sen wal ndax ndaxte jégué nañ port wala jégué nañ aéroport bu bees bi donc logement yi foofu lañ jëm logement yi nak ma taxaw ci touti ci histoire du Sénégal depuis jamonoy colon yi SICAP ak SNHLM lam defena 57 lañ leen créer bi ñu tàmbalee def logement dafa am lu amone manam dañ dan traiter l'offre et la demande bobu sax mën na am problème offre amul woon ndaxte suuf jafewul won donc dafa amone liñ dan wax caisse de coopération française bo xamné ne da daan jël xaalis bu bari bo xamné ne mën na am ci gerte lañ ko lañ ko garantiroon diko duggal ci société yu melni ni SICAP ñoom ñuy mëna tabax logement sur le long terme buñ ko tabaxé ba paré mën lako lebal ci juroom ñaari at fukki at fukki at ak juroom loolu nak amatul looloo tax SICAP ak SNHLM buñu ñu defaree kër tamit mënuñu ko lebal nit ci fukki at ak juroom ndax ndaxte faaw xaalis bobu am président de la république nak né 2019 2024 dama bëgg ñu changer loolu yépp que bu ñuy dimbali ni logement dañu war traiter la question de l'offre et la question de la demande lan mooy la question de l'offre l'offre mooy kiy tabax buy tabax naka la def ba kër mu tabax ci production massive de logement accélérer l'offre de logement mais kër yi mel na mu war mel waaye njëg bi tamit bañ dépasser wax ngeen ko Cheikh analyser sur le marché boo Bambilor ak topé environ 15 millions de jar deux chambres salon 65 mètres carrés terrain ou 150 mètres carrés ministère bi def une analyse ba gis ko mais lu waral c'est parce que suuf si dafa am c'est parce que suuf si joxuñu leen ko gratuitement c'est parce que defaruñu dispositif bu war a tax ñu mën a am sax une contrepartie sur l'aménagement président de la république nag ne logement Il a ko bëggee faaw commune gratuitement aux promoteurs loolu la leen état sas waaye nag état sasu leen rek ñu jël

ñi nga xam ne ñoo doon waxal sànq suñu mbokk yi nekk diaspora 20 pour cent président 30 pour cent sax la bëgg looloo yéeneem mais ñun dañ ne nañ tàmbalee 20 pour cent ndaxte besoin bi fii la gën a nekkee ci waa Sénégal léegi nag lu ñuy gën a monter année par année année par année ñuy xool naka la ñuy ci 30 pour cent yooyu. ñu ne 20 pour cent ñu def ko logement des Sénégalais de l'extérieur 30 pour cent yi ci des nag ñu bàyyee ko promoteur bi moom mu organiser wu xool ban montage lay def ngir mën a équilibrer li nga xam ne moom mooy lotissement am parce que nag. ki nga xam ne promoteur la tamit day jël ay risque dañ ko war a garantir ne li muy def am na rentabilité loolu nag ma am mbégte wax leen ne d'abord 60 pour cent ci axe Dakar Thiès Mbour lañ ko waajee parce que demande de bi fii la gën a nekk su ma déggee ñu naan Diamniadio la yem looloo tax may leen da ngeen xamul ne Dakar c'est une grande métropole boo xam ne léegi dafa dem ba créer li ñuy wax conurbation Dakar Thiès ak mbuur daanaka benn la booy romb dëkk yi amatul sax espace donc vous wax la grande métropole Dakar Thiès Mbour la le triangle Dakar Thiès Mbour donc triangle Dakar Thiès 60 des logements il ñu 40 des logements nous ne bépp bu nek Sénégal bu 10 000 habitants war nga mëna ñëw taxaw Aminata Diaw wax nako sank ma ngi wax la zone la bo bi dafa important am mais ñooñu war nañ leen mën a créer seen programme logement comme yeneen dëkk am na ñeneen ñu ko fi tudd mais li ma bëgg ngeen jàpp rek mooy logement ni ñu koy traité mooy d'abord l'offre jàppale ñiy tabax ba ñu am suuf su jàppandi suuf soo xam ne du am benn charge fexe ba terrain yooyu bu ñu leen koy jox tamit ñu mën ko titrer gratuitement bu ñu ko titrer ñun morsaleel leen ko ba nga xam ne parcelle bu nekk bu amee ku ko bëgg a jënd banque bi dina sawar joxe detam seen état du Sénégal naka lay jàppale promoteur yooyu Euh, président Aymerou Gningue wax nako sank dañu créer li nga xamné fonds de l'habitat social Il a créer ci autorisé ci loi d'orientation sur le sur le logement social bi nga 2016 vota ngén ko loi boobu que l'État wax état du Sénégal day créer fonds de l'habitat social jël créé du budgétaire ak ay taxes yo xamné dañ ko dëppaleeg habitat social lu melni ciment def nañ ko 2000 francs muy 1 franc par kilogramme on naté moy muy 2000 francs par tonne defe naa mois de septembre monsieur le ministre des finances wax nañu ne toll na ci 10 milliards li nga xam ne collecté nañ ko fin d'année war na àgg ci 15 milliards loolu ñu dugal ko ci fonds de l'habitat social fonds de l'habitat social boobu ñaar lañ ciy def dañu naan ana ñaata ñoo bëgg a jënd kër te mën am amuñu bulletin de salaire wala mën na am seen revenu matul état du Sénégal xool banque yi nga xamante ne bëgg nañ leen lebal mais bu ñu leen waree lebal mën na am ñàkk bulletin de salaire bi moo tax mënu ma leen lebal wala revenu bi dafa am lu ci manqué loolu la ñuy wax fonds de garantie donc fonds de l'habitat social dafa am partie boo xam ne garantie la état du Sénégal jël ko joxe ko li leneen li ci topp nag mooy li nga xam ne bonification de taux la ñu ne taux bi 6 pour wala 7 pour cent la waroon doon ñu ne ah 15 milliards yi nañ ci jël 1 milliard képp ku waroon fay mën na am taux 7 pour cent ñu wàññil la 1 pour cent wala 2 pour cent bi ndax mu gën a yomb mu gën a yëwén ci yow ñetteel bi nag leneen li nga xam ne moom lañ cay traité mooy euh, VRD moy li nga xam mom moom la ñuy wax réseau primaire té promoteur buñ la yobbo Kër Moussa wala ñu yobbu la Bargny wala ñu yobbu la Bambilor ci Ndiagne Diop dañ la wara wax né fi bo fi excès digënté route nationale bi ba sa buntu site état bi mo lay andil tali mo lay andil courant mo lay andil ndox mo lay andil assainissement lolu nak fonds de l'habitat social bobu mo koy def fonds de l'habitat social bi nak tàmbali na wax deug yalla 15 milliards lañ tambalé mais dinañ ci def kéem lu ñu mën li ñu njott dal moy 2020 bi war nañ mëna garantir au moins dix mille compatriotes yoo xamante ne banque nanguwu leen lebal loolooy wane nak ma tontu ñi nga xam ne doon nañu wax ne ndax di ngeen fexe ba logement yooyu jëm ci ñi nga xam ne ay néew di doole lañ loolu tamit ma fàttali leen ne loi 2016 loi d'orientation sur le logement social yé yéen a ko voté da ngeen ne ci biir loi bi ne képp koo xamante ne da nga bëgg ci kër yi da nga war a de nationalité sénégalaise sa revenu par habitant sa revenu euh, par ménage balen ma manam yow ak sa njaboot warta weesu quatre cent cinquante ñaar ñetteel ba tamit ngeen ne kooku war na am activité mo xam informel la wala salarié la donc c'est bien encadré te dinañ tek bala bobu condition d'éligibilité yoy nga xam ne ko voté ci loi nga xam ñun mënuñu def lu do respecter lolu joxé ko ba nga xam nit ñi dinañ ci mëna a sukkandiku ngir képp ku ñuy avaliser ne mën nga am ci logement yooyu nga mën ko def donc wax naa leen ne offre bi noonu lañ koy traité joxe suuf bu jàppandi fexe tamit ba VRD yi ñu def ko fexe ba am dispositif boo xam ne day yombal morcellement titres yi ba nga xam ne kuy dem di leb banque bi dina sawar ndaxte sa sa suuf dina ko mën a hypothéquer offre bi tamit wax naa leen demande bi mooy ñi nga xamante ne ñooy jënd si kër te jàpp nañ ne mën na am revenu informel lañu yor waaye ñi ngi góorgóorlu am nañ dara waaye système bancaire moo leen mënul euh, lebal te dañuy bañ ñuy jóg rek di jéem a fay seen kër benn yoon wax naa leen ko li président la république bëgg mooy yemale sénégalais yi que nit ki foo mën a ne ak loo mën a am état du Sénégal teg loxoom ci yow.